fa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñu nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokk yi nga xam te ne ñuy teewlu jotaay bi yépp leen jox seen wàcc waaye tey ñaan sunu boroom sunuy kàddu fekk leen ci jàmm ginnaaw sunu nuyoo nag ñu del si wàcc sunu jotaay yu yóbbulu ndaw ñi muy jotaayu fàttali ak xamle mel ni ñi ngi woon ci téere bii ñuy wax tasawudu sixaar jàngale woon nañu nag ci sunu bunt yi ñu mujj ci dars yi muy buntu bi jàngale lan mooy faratay julli ak ñaata la ak sunnaay julli ak ñaata la kon ñuy del nag di ñëw ci sunu bindu tey muy jàngale lan mooy farataay njàpp ak yan ak yan la ak ñaata la ci ab yim ak ci ab lim lii ab bunt la wala ab dog la fii faraa'idil wudu'i ci faratay njàpp kon lii bunt la boo xam te ni dafay bëgg a jàngale lan mooy faratay njàpp ak faratay njàpp ñaata la ci ab lim ak yan ak yan la mu ne wudu una sunu njàpp furuduhu farataya samaaniya juróom-ñett la fii xawli haada sayxi ci waxi bile sëriñ laa déet weddi niyatu naa sunu yéene wa xuslu naa ak sunu raxas alwajiha xar kanam ga maa xas raxas loxo li mar fixin ba ci conc yi fantafiha nanga jariñu kazaaka niki taxliilul asaabihi xalil baaraami loxo ya warat rot na mooy dikk na rek maxa fara idil wudu i ànd ak farataay njàpp ya laa fanat déet muy am benn fen waa masxu rëxsika ak masa sa bopp wa xaslu rijli ak raxas tànk wa dalku ak ragg mooy bomb wal fawru ak gaaw gaaw nag boo ko déggee mooy toftale rek la daasi naxli fa borom toxal ka kon yii mooy faratay njàpp wax na la faratay njàpp juróom ñett la kon juróom ñett yooyee bi ca njëkk mooy yéene yéene nag boo demee ba war sëlëm sa kanam raxas sa xar kanam ngay tàbbalee yéene yi boo yéenee nga raxas sa xar kanam ba mu daj xar kanam nag na nga bàyyi xel ne dafa am guddaay am gàttaay guddaay bi mooy li tàmbalee fa jëba fa karaw ga saxee ca jëba ba ci suuf sikkin bi loolu mooy guddaay bi bu dee yaatuwaay bi mu ngi tàmbalee ci nopp ndeyjoor ba ci nopp càmmoñ loolu lépp nag dañ koy raxas fexe ba lépp tooy kon boobu muy ñaar ñetteel ba mooy nga raxas sa ñaari loxo ba ci conc yi mooy sa loxo ndeyjoor ak sa loxo càmmoñ ba ci conc yi ñeenteel ba mooy xalil baaraami loxo yi da ko ci limaale am na ñoo xam te nii nag dañ koy def muy waragar waaye nag dafa limaale moom xalil baaraami loxo yi ci farata yi ba ya toppaat di masaa sa bopp masaa bu jëkk ba mooy booy door as say loxo ci sa ndox ci ndox mi teg ko ci jëbi fi karaw gi saxee ci jëbi yóbbu ko ba ci ginnaaw la ba ca ndong la loolu mooy masaa gu njëkk gi nga xam ni farata ak raxas say tànk sa tànk ndeyjoor ak sa tànk càmmoñ te booy raxas cër yëpp na ànd ak bomb waxuñu ne ngay jël ndox mi rek di sotti kon faw mu ànd ak bomb juróom ñetteel ba nag mooy gaaw gi waxoon mooy toftale lépp loo def rek nga teg ca la ca war a topp li ñuy bañ nag mooy nga raxas loxo war a galax wala war a raxas kanam toog ba mu neex la nga door ko raxas kon lu mu loo yeex yeex na ngay fexe ba loo def rek teg ci la ci war a topp kon loolu mooy juróom-ñett yi nga xam te nii mooy farataay njàpp ci njàngaleem imaam Xawfi mu nekkoon mu jàll ci butum ñaareel bi muy jàngale sunna yi mu ne faslun lii ab bunt la fii sunanihi ci ay sunnaam moom njàpp sunanuhu ay sunnaam moom njàpp mislal faraidi comme farata tuxat def na ko lim fii maa ci la nga xam ne anil xaw fi jóge na ci imam xaw fi zil yi kay borom fiq warat rot na ixsil mooy nga raxas ya day ka sa ñaari loxo mat mit galax ndikul istansix ak sarax ndikul isa boobee wam sax ta nga masa usnay ni ñaari nopp ya wa xusaa ta nga jàpp taj di den yeesal ga wantasir ta sarax ndikul warudda rod na mooy am mooy dikk na rek mas mu rax si masa bopp ba waratti ban ta toftale tukk fa kon dees na la fegal kulle ba si bépp ay kon mu ne kat loolu mooy farata mooy sunnay njàpp kon mu lim la wax foofu mooy sunnay njàpp yi ak faratay njàpp yi ñoo yam ci ab lim kon mu ngi limoon ne faratay jàpp fukk la juróom-ñett la kon bokk faratay njàpp juróom-ñett la kon bu nee la moo sunu yi ñoo yem kon dangay ngay jàpp ne sunna yi tamit juróom-ñett la farata yi ne ko waxoon naa la ne la xalil baaraami loxo yi am na ñoo xam te warugal lañ ko indi waaye moom daf koo indi boole ko ci farata yi ndax baaraami loxo kat ci farata yi njàpp dafa nekk loo xam te lu am solo ndax diggante bi nga xamee ne loxo yi dafay xaw a xat bari foo xam te ni du tooy. kon nga xalil ko ba mu tooy lu am solo kon mu ne la sunnay njàppkat juróom-ñett la comme faratay njàpp kon ba ci njëkk mooy ban mooy nga raxas sa ñaari loxo ba ci tikki jaray mooy fi ngay takk montul nga raxas ñaari loxo ba foofu ñetti yoon walla benn yoon sax sunna si dugg na nga galax muy ñaar sarax ndiku muy ñett te nga ak nga masa <coughs> nga masa sa ñaari nopp muy ñeent ak yeesal bi ngay yeesal ndox mi booy masaa sa ñaari nopp muy juróom nga sarax ndiku muy juróom benn ak masaa sa bopp masaab ñaareel ba mooy delloo si masaa ga nga waxoon na la farata yi mooy masaa sa bopp gu njëkk gi ñaareelu masaa bi nag moom lay wax mooy sunna muy juróom ñaar juróom ñetteel ba mooy toftale toftale nag bu ko waxee mooy loo def rek teg ci la ca war a topp comme ni ko alxuraan andee li loo def rek la ca war nga teg ko ca comme loolu mooy toftale gi mu ne kon nag tuk fa dees na la fegal kulla basin bépp ay kon juróom-ñett yooyu mooy sunnaay njàpp kon indil nañ lan mooy faataay njàpp ak ñaata la indi nañ it lan mooy sunnaay njàpp ak ñaata la kon man nañu suñ jotaayu tey dañ koy fas yéene yamale foofu incha allah rabbi lépp lu fi jub ñu xam ne suñu boroom la moom mi aji mat lu fi dëng ñu xam ne suñu jëmuy xeew yii la ñuy ñaan suñu defal ñu tawféex defal ñu jàmm mujj gu rafet sàmmal ñu suñu diine sàmmal ñu suñu ngëm ñi ngi ñaan suñu boroom may ñu beneen jotaay incha allah rabbi wala ay jotaayu jotaay ñu koy daje te mu nangul ñu lépp kon ñu ngi leen jox dig daje beneen jotaay incha allah yàlla na fay ñëpp yow yëpp aw yiw bu bari in uridu ilal islaam mastata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh زيد